صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أحمد المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتما خلق القاتم لما سبقنا سراقنا قول هادي لعسراتك المستقيم وعلى آل أخذ المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتما خلق القاتم لما سبقنا سراقنا قول هادي لعسراتك المستقيم وعلى آل أخذ المقدار العظيم اللهم حبيبي شيخ تجالي ربنا أسرع فنقل هادنا صراطك المستقيم وعلى آل أقدر المقدار العظيم الله أبي بشيخ تجالي اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا يملكون لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأ فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الفاتحة amin yaa rabbu mi ngi fàttali waxu mawlaana Cheikh Ibrahim bi nga xam ne ñu bëri mokkal nañ ko fal tajcalana xifsa kitaabika alkarimi karamati ila liqaayika alazim te loolu bu ko bàyyi waxee bokk na lim ñuy jàngal woon ñu ne moo doon yonent ndax yonent alquran mooy mujisaam kon bàyyi alquran mooy karaamaam yal na yàlla saxal ko si ñun te mu jàng ay saar yu yéeme man bi muy jàng bu njëkk bi rek damay fàttaliku ñun taalibe yi nañ ci dégg aay yooyu bu baax waaye saar bu mujj bi nag man dama wax ne sëriñ bi lay junj rek sëriñ bi moom yor-yor la nu mu gën a demee rek gën a leer moom jaarul si lëndëm kon suñu lëndëmee ñun bu ñëwee si moom rek danañu leeral mbokk yi kon tey bésu siyaar la bàyyi nag moo ñu jàngal ñun ñëpp lépp lu ñuy def ñu. sës laay ko si alquran ak sunna moo tax insha allah dana am ay muqaddam yoo xam ne dañu leen jox kàddu gi pour ñu waxtaan pour wane ne baaba mii baaba ñëpp la baaba mii Cheikh Ibrahim la bu ko yàlla indi si ndakaaru moo tax muqaddam yépp a ko bopp loolu moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha bi tey nga xamante ni mooy suñ mag mu def xelaat bu rafet bii pour wane ne at bu nekk danañ tànn ay muqaddam yoo xam ne ñooy wax si kaddu muqaddam yépp chaque année rek danañ jox ngen pour ñu jàngale fàttali waxu Mawlana Cheikh Ibrahim siyaar nag buñ ko tënkee rek bàyyi moo ko wax mu ne aaya bi nga xamante ni mooy tegtalu siyaare mooy walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaban rahiman mu ne biñ demee ba yëg ne dañoo tooñ seen bopp bu ñu la ñëwalee yow yonent bi jaa uuka la wax ñu jéggalu yàlla nga jéggalu leen yàlla loolu nag moo ñu indi si sëriñ bi te loolu am na cës laa itam si sunna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na si xadis bu wér boo xamante ni ñu bari jàng nañ ko loolu mooy tegtalu siyaare si sunna te xadis bi mi ngi si sayul muslim mi ngi sayul buxaari mooy yonent bi li mu wax ne ma daara rajulun rajulan fi llahi shawqan ilayhi wa raqbatan fi liqaa'i illa nadaahu malakun min xalfi tibta wa taaba man saaka wa taabat laka aljannatu ñun yaakaar naa lool dugg na si ñun mooy kenn du siyaare benn waay te siyaare woo ko ludul sopp si yàlla te Baaba Lamin bii ñuy siyaare muy Cheikh Mouhamadou Lamin ñun ñëpp dañ koo bëgg si yàlla lu dul benn malaaka mi ngi sa gannaaw di la woone say jéego teey na sa jëf teey na aljana teey na ñeexal la na ko wax na mu ne kayfa bir rajuli yakunu maahu sheyquhu fi lbaladi wa yaqibu anhu talaatata ayaamin wa lam naka la nit di nekkee taalibe nekk si benn dëkk ñetti fan te siyaare ji wut sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahim lii wax si Jawaahir Rasaa'il lim si yokk mooy moom Mawlana Cheikh Ibrahim daf ne wa daa qaalahu Cheikhu Tijaani taajuban min daawa mriil muridiyata ma haasiya taxsiir il kabiri mu ne lii Cheikh Tijaan bu ko waxee daf ko wax ngir yéemu ki nga xam ne moom melokaanoo melokaan yii naka lay woote woo ak taalibe ànd ak gàttañ lu bu rëy bii boo ma laajoon lu tax bàyyi bàyyi wax siyaare loolu itam mun nañ ko tënk bàyyi wax na ko si jaawar rasail nee na wa taxtilu lmuridu alsiyaarata fi gaalibi alasmaani dalilun qatiun ala adami sidqihi wa adami isdiyaadihi billahi walrujuci ila alagyaari wa cibadati nafsihi wa hawaaha wa fiha isdiyaadu almahabati wa illa falmuridu nafsuhu biqadri mahabatihi wa muwasalatihi lilcheyqi fa ala almuridi alsaadiqi an yacdura xadrata cheyqihi lisiyaara walistimdaada min fuyudaatihi wal iqtibaadu min anwaarihi Cheikh Ibrahim moo ko wax fi jawaahir rasaa'il te kenn amul sikk am na barke kenn amul sikk am na barke ndax Baye moo ko ko garantal kon barkeem ñu ngi leen di ñaanal yal na yokk leen yal yàlla yokk taalibe yëpp mahabbatu Cheikh Ibrahim ak dëggu sikk taalibe kon dañuy woo al oustaz mu ne ñu ngi ak Ousseynou Ba moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax mi ngi si jotaay bi mu ne ansaaru diin Amerika foofu moo ko yore te mi ngi liggéey liggéey bu yéeme moom itam ñu ngi koy gërëm di gërëm mboolem ñi teew kenn ku nekk buñ la doon tudd suba la ñuy pare waaye ñu ngi dugal rek képp ku kuñ tudd rek yal na yàlla yéegal la si xaasul xaas ñi nga xam ne tudd nañ leen itam tam na yàlla yéegal leen foofu si barki Mawlana Cheikh Ibrahim kon ñu woo al ustaz Ahmad Dame Gueye mu am fukki minutes am incha allah buñ paree ñu continuer si keneen.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 walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wa staxfara lahum rasul la wajadu llaha tawaaban rahima wa raja llahu an ilqutbi almaktum walxaatimi muhammadi almaalum abil abbas mumidi jami awliyaa illahi min al azali ila al abad alqaa'il qadamaaya ala raqabati kulli wajhi illahi min ladun aadama ila nafiqi bi suur wa an waarisi sirrihi bil istixqaaq مولانا شيخ الإسلام بهجة الليالي والأيام القائم والأمة قصدي فيه أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم هل في الخلق أحنا عليه مدى الدهر مني والبعيد كما دنا وما فيك مما فيك يبدون فاستهنا وانتهى سميني لحديث مسافر له رأس مني ومحيا وعقلي وكلكلي والفؤاد وما هناك أو سالفتي وكاهدي ثم جانبي fa kulli li xayril xalqi bal hal mudaahina danaa gàttal suma waxtaan ci xasida li ma mujj a wax nga xam ne bàyyi moo ne su ma namm namm ci xeet yi mooy ma omat leen ñoom ñëpp yóbbu leen ba seen kanam borom kon Mawlana Cheikh Ibrahim su ma bëggee wax ci lu gàtt danaa wax ne moom mission am xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa la mission am duul benn sëriñ boo xam ne dafa juddu di jàngale alquran dégg nga di yar ay nit kese waaye mission am yàlla daf koo tasaare mu nekk mboolem xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu man loolu parce que mu ne wal ummatu qasdi fihim an asuqo ila hadratil bari rahimi ilahina ñoom ñëpp moom màngaleen ba ci seen pays borom mu ne wa taalamu hal fil xalqi ahna alayhim madadahum minni wal baidu kama dana amul ku ma gën a bëgg xeetu yonent bi sallallahu wa sallam ku jege ak ku sori lu tax parce que lahu rësu minni wa muhayya wa aqli wa kalkali wal fuaadi wa mahuna aw saalifati summa kaahili wa jaahibi fa kulli li xayri xalqi bal hal mudaahibi mission bi mu taxawee ku jeexu ci dëgg-dëgg yonent yàlla Muhammad munoo ko ndax Mawlana Cheikh Ibrahim nekkul nit ku ordinaire ndax boo xoolee ni mu boppam ne yonent bi moo moom xolam moo moom jëmmam moo moom doomam moo moom lépp lu mu am aw kaahili summa saalifati wa jaanibi fa kulli li xayril xalqi banaan wal ahluuna wal awlaadu summa maa xawa anmu li mulkan wa maa kaana daajina lu mu ci teg tasattartu an dahri bi taaha muhammadin wa man kaana lil muxtaari man fakka amina fa maa arafa al ayaamu rabbi وما درت سماتي مستاقنت أحمد قاتلا وأحمد سر ذاتي وسات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا mu ne bés yi xamuñ fu ma dëkk xamuñ su ma tur depuis ma dëkk ak Ahmad kan mooy Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmad Tidiane ne na benn waaye dana feeñ ba ñépp gis ko kenn du ko xam ci àddina kenn du ko xam ci àllaaxira foofu fan la ñuy xamee waa jooju mu ne koo xam parce fa maa arafal ayaamu rabbi wa maa dara sumaati su may tur xamuñu ko mustaakantu ahmada xaatina parce que ahmadu mooy mbóotam jëmm ji jëmm ji mooy mbóot mi tasaawa ala idrakil jëld waahida mu teg ci ne bi kanziyatin aw kuntu qabla taarufi taharraka min sa sirri maa kaana saakina bi zaaka bada tashtiitu min nahwi sirrihi wa allaqtu min zaaka zamani ilahuna Cheikh Ibrahim moom nga xam ne mooy borom mission bu màgg bi yàlla wax ne inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashtaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahulan Cheikh Ibrahim moomu nga xam ne mooy borom mission bu rëy bi yàlla jox ko ndigal parce que moo wax ne namm nammam ci xeet bi mooy mu yóbbu leen ñoom ñëpp ba ne seen borom ngoogu moo tax bi nga xamee ne 1929 ndigal dikk ci moom ndégg ca ndigal loo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane junjoon na ko na taati xarit taati ala asxaabi mu ne faydu bi dana ñëw dugg ci sumay saxaaba ba nit ñi di dugg ci tariqa bi mboolooy mbooloo wax na borom tariqa bi borom faydu bi junj na ko ne ca dana ñëw ci jamono joo xam ne àddina dana xat keret bi nga xamee ne oote na faydu boobu ba yàlla jox ko ndigal mu tasaare ko ci àddina tasaare boo xam ne kenn mësul gis lu mel noonu kon taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim nañ sant yàlla bi ñu yàlla joxee li ñépp doon ut mboolem alam bi yépp Mawlana Cheikh Ibrahim lañ doon wër parce que boo xoolee Ousmane Dan Fodio ci Nigeria wax na ne borom faylu dana ñëw waaye dana ñëw turam Ibrahim lay tudd boo xoolee ku yaatu dënn la ku yaatu ay bët la ku bëri lu muy dem Màkka ak Medina ca bu feeñee ci àddina li ëpp ci ñu ko topp fii lay ëpp ci Nigéria bi mu woyee loolu ci pël bi ak bi bàyyi di feeñ def na téeméeri at Cheikh Ibrahim moomu bi mu feeñee jël mission bi di ko tasaare ci senegal ñu bëri nanguwuñu xale yi rek ñoo ko topp muy góorgóorlu ba ci 1937 muy génn Sénégalam yoonu njëkk ndax mu ngi juddoo Taïba Niassène ci Taïba googu nga xam ne tuddutoon tay ba tey bàyyi la parce que bëgguma décortiquer ndax temps bi yaatuwul waaye konoon danañ wax tay ba ñeseen lu tax mu tudd tudd tey bàyyi ak bi bàyyi ñëwee la daa xawaali tay ba tafal tatrida kulla sururin abadan wa sarmada Mawlana Ibrahim radiallahu foofu la juddoo woy juróom moo ko jàngal lépp lu ñuy jàng ba ci 1921 bàyyi am 21 ans taalif téere tuddee ko lima xawaa min hikamin wa adabin téere boobu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu boo demee ba ci fin bi mu ngi wax ne qad qaala fi hada al majaali l amjad qadimu taaha maliku ahmad fi may waxee nii Serigne Touba Mouhamad waxee woon na fi Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu modèle la ndax yàlla daf ko may mu réussir loo xam ne ñu bëri ci borom xam-xam ak wali mën nañ ko ñàkk bañ a réussir mooy xol bu set mucc ci añaan Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ku am may rek nangul na la ko lu tax parce que bàyyi duhut ku ñuy may moom mooy séddale yonent yàlla Muhammad mooy buntu yàlla waaye Mawlana Cheikh Ibrahim mooy bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku jaarul ci moom doo am mu ngi mel ni nga ñëw ci benn milliardaire mu yëkkati li million sedd kii yëkkati dix mille jox sedd kii mënoo sedd nit ki mënoo sedd nit ki ba cëram éem la parce que yaa ko sedd Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu noonu la meloon moo tax mbooleen ku nekkoon Sénégal mu am ak yow relation xam ne bu xóot la bu sori la loolu nag ñu taalibe war nañ ko roy parce que Baye daf ñoo jàngal ñu fonk borom xam-xam Baye daf ñoo jàngal ñu fonk muxaddam yi parce que dafa wax ne wa laazima al hudura wa sukuna kasa xalwatan tuxiinu xiina na nga taxoo di teew ci kanam sëriñ bi su boobaa xalwa jooju dana la dimbale wax na ne nañ respecté mboolem tariqa tijaan wax na ne nañ respecté mboolem muqaddam wax na nañ fonk ñëpp képp ko gis kuy xeeb waliyu yàlla wala muy xeeb doomu aadama wala muy xeeb sëriñ wala muy wax ci daram lu waxuwul kooku jàngewu ko ci bàyyi royewu ko ci bàyyi Mawlana Cheikh Ibrahim jàngaleen lu leer la mooy jub jubal respecté ñëpp fonk ñëpp ci nga xam ne moo waral tey jotaay bi modèle la ay doomam tamit model lañ ñu ñëpp ñu ngi toog tey ñoom ñëpp li ñuy wax ni ñoo ñu ko dàq ndax ñu lépp luñ wax rek mu ngi mel ni lool puso boo jël samp ko ci géej yi li ci tooy lu mu wàññiwul géej gi rek ñu amuñu ko ci Cheikh Ibrahim kon ñu ngi ndokkeel mboolem taalibe baay di ndokkeel Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin jataay bii chance la pour teew ci lu tax ma ne chance la pour teew ci Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu may Cheikh Mouhamadul Amin mu nekk koo xam ne mooy continuer mission am mission bi nga xam ne du dagg mukk parce que bàyyi xadratul istimta istimraari yi la bu bata déparé rek bata costé Mawlana Cheikh Ibrahim moo wax ci Mouhamadul Amin ne ko huna majmuatun min al asanid tajid biha nafsaka fi malain min asalihin xamlata shaar mu ne lii mooy su may asanid yi nga xam ne am naa ko muy ay silsilaam ëpp na juróom fukki silsila lépp jox na ko Baaba Lamin ne ko pour li tax duma هذا الدين وهذا الطريقة التجانية حتى نلتقي أمام الله ورسوله وأمام الشيخ التجاني رضي الله عنه وإني كما قال الشاعر أهيم بدعد ما حييت وإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها mu ne jox naa la ràngal naa la grade bi pour nga liggéeyal diina liggéeyal tariqa bi liggéeyal yàlla ak yonent bi ba keroog ñuy daje ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon baaba am na damaal ak garanti ne dana dajeeg yàlla ku ànd ak moom da nga dajeeg moom ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ma ne tey ku fi teew rek am nga ngëneel ca booba nag kanam yonent bi ci yowmal qiyaam du yomb de parce que même yonent yi koo dem nafsi nafsi lay wax boo de koo dem rek sama bopp laa tal moo tax bàyyi na fa min ayini ayatuhu wa kitaabuhu jadidun ala tuli zamani wala garwa waqad wati arshan majidata qahharat bu ayna qulubin samsuhu wa badal saxwa a ajabu haza am uyunun tafajjarat min alkafi kafi almustafa wa safa wa safa am albadru mashkuqan أم جزء سارقا حنينا له أم صفحة قد أتت حبوا أم الكف من ترب تبيد عرمرما أم السنة الغراء تستصل الأهواء أتلك أم التشفيع يوم تقطعت وسائل كل الناس والمصطفى الموعى كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي بقي جلدني بقي طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi ñaan ci mbooloo mi ñëpp ñu wax ne jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass jërëjëfee Baye Niass ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu boole ñu bokk ci programme Baye ndax Baye moo ñu waxoon ci ay ñaanam ne qil li suban fadla wa tur li min kulli shay'in xayruhu kulli kon ñun bàyyi ba ko yàlla programme bi pare ñun dañ bokk ci ay programme am ndok biñ xamee ne yàlla tànn nañu nekk di ay tànneef ci mbindeefam yi te mooy ñu nekk doomu aadama waaye biñ nekkee doomu aadama bi pare mu tànn ñu ñu nekk di ay jullit waaye biñ nekkee ay jullit ba pare mu tànn ñu ñu nekk ci biir jullit ñooñu ay tiijaan waaye ci tiijaan yooyu ci biir tiijaan ñu tànn ñu ñu nekk di ay taalibey baay loolu programme baay la ndax du ñaan lu yàlla di naan déet kon la ne yàlla tànnal ma kon ñun tànneef lañu ñu ñaal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass kon buñ ne jërëjëfe Baay Niass dëgg-dëgg loolu moo ñu war ndax la in sakartum la asidannakum waaye jërëjëf googu dinaa taxaw rek gannaaw bi ma jiitalee nu yóbbu ziyaara ci taalibe yi yépp ne jërëjëf googu dafa am lu nga xam ne moom lañu war a meññil te mooy al wax na ko léegi imaam Konté wax na ne jikko yi imam Bachir wax na muy tàmbali ne bi mu sante yàlla bi pare mu ngi ne bàyyi ci téere boobu nga xam ne moom la njëkk a taalif muy roxul adab mu wax xasida bu mujj gi nga xam ne moom la wax ci jox ñépp cër ndax moom mooy joxekatu cër bi ma ne téere boobu rek suñ jàngoon unwaan bi mën nañu yem ci ne kon bàyyi lim ñu digal mooy ñu am yar am yar googu nag mooy tegtale ne rangoo nañ jikko yi nga xam ne moo taxoon ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innama bu'istu li utammim makaarimul axlaaq jikko yooyu nag mooy nawloo wante bi nga xam ne tey man su ma taxawee bugg a wax damay naan nawloo wante googu rek moom laa nawee taalibe bàyyi loo gis nag léeg-léeg am lu ci joxoñ waaye wallahi bi Cheikh Basir di wax ellantu woon nañu jël sama xol ñu jël xol Cheikh Abdoul Aziz ñu jël xol Cheikh Oustaz Dame Guèye ñoom ñépp ñu nekk kenn ki mu wax mu jeex parce que ñun ay nawle lañ te kenn bu waxee rek waxal na ñëpp te jikko yu rafet bokk na ci doylu wante jikko yu rafet bokk na ci kenn ku nekk ci ñun xam ne moo di moromam ñun ñu fi toog tey tuddoo ay taalibe baay am na yoo xam ne ñoo ngi koy joxoñ tey ci jumtukaayu jamono te am na ñoo xam ne tey ci taalibey baay ci jumtukaayu jamono yooyu tey ñoo ngi leen ciy joxoñ loo xam ne lii kenn xamewu ko bàyyi te loolu ay junj la doy na borom xel yi te ñooñu amaat na am na ñoo xam ne ñi ñoo ci yoonu mbaar mii te gàcce la ci ne yow taalibe bàyyi nga ñu joxoñ la ne la fekk nañ ci yow jikko yoo xam ne rafetu la te tey jii addina bi yépp xam ngeen ne moom ci benn loxo te jumtukaay boobu su fekkee ne wax naa ne moom moo di appareil bi nga xam ne gii tey moom nga ngëpp di koy filmer ma ne jumtukaay boobu xam ngeen ne tey Imam Konté dëgg-dëgg am na ay taalibe yoo xam ne yi gàcceel nañ ci seen bopp du ma ne gàcceel nañ ci bàyyi waaye gàcceel nañ ci seen bopp ci gannaaw Cheikh Moustapha Biteye yal na yàlla yokk fanam ak wéram dañu ne lekk bu lekkee aloom na ko gërëmee cooy gis nga mbaar mii ñu toog tey sunna bii moom moo ko sos sosal ko mboolem muqaddam yi nag man de maa ngi profité ci jataay bi di koy ñaanal yàlla di ñaan borom bi tabaaraka wa taala yal nañ ñëpp roy ci moom ndax sunna la boo xam ne ji tax na tey mboolem kuy taalibi bàyyi ci dëkk Dakar jëriñu ci walla senegal te moo ko sos lu sotti nag am borom ci HLM Grand Yoff dañ fa daje defe naa tolloowut ak semaine keroog benn commandant bi mu jëlee kaddu ci way juru taalibey bàyyi dafa wax Cheikh Moustapha ne man damay laayee biir taalibey bàyyi wala njaboot gi ne nañu moytandiku jumtukaay ji xew tey ba mu waxee ba sottal man dama ne dëgg-dëgg lii ñu wax joxoñ la te na ku nekk war na ci mën a gis boppam su ko defee duma guddal suma kaddu fi may daanalee mooy ki ñuy ziyaara tey dama ciy joxe rek ay misaal du ma wax laaya du ma wax hadis du wax bay ci bàyyi waaye damay wax ci ki nga xam ne moom la ñuy si tey ci loo xam ne lii man yàllaa ma ko ci may loolu nag seede la waaye bëgg ñun ñëpp ñu jëriñu moo tax ma di koy wax te mooy jox ko mooy jëriñu te suñu ziyaara tekkiwu lu dul que ñu ñëw joxe te déglu ndax wax ji daanaka rek jaru ko kon baaba yal nañ ko yàlla sàmmal te yokk fanam yal na yàlla guddal fanam ñun ñépp maa ngi ñaan kenn ku nekk si nga toog na nga jàng benn tey salaatul faatiha te wax ne baaba yal na am téeméeri at ñu door di koy kontel ay at maa ngi ñaan kenn ku nekk na ko jàng te warlul ko ci barke jataay bi imaam Konte dama ñëw di ziare si baaba jóge ACM Grand Yoff. bi may ñëw ñaari téeméeri dërëm rek laa yore. bi ma agsee fekk ko mu toog ci saal bi. te dëkkatuma ACM Grand Yoff maa ngi dëkk jaxaay cité gendarmerie. bi ma ñëwee yëkkati ñaari téeméeri dërëm yi jox ko ko haddiya dërëm desul ci sama poos bi ma ko joxee ñaar téeméer yi am na setam yoo xam ne ñu ngi toogoon ci wetam mu yëkkati ñaar téeméer yi jox leen ko xale yi génn dem seen yoon man mi nga xam ne maa ngi woon ziyaara si tàllal sama loxo mu ñaanal ma te maa ngi war a ñibbi Kër Massar may génn wàcc premier escalier bi dajeeg benn taalibe boo xam ne ku ko xam laa mu yëkkati ñaari junni teg ko sama loxo ma jóge sa wàcc génn kër gi ak si ci buntu kër gi wala jël taxi dem ma dajeeg beneen taalibe wallahi mu jox ma ñetti junni bi ma jëlee taxi ak aslem Grand Yoff am ku yëkkati ñeenti junni jox ma ko lii nag damay wax ne kon ki ñuy ziare si te war ko jox xaalis wax nañu bés ne ne ku bëgg xaalis ba toppam Maulana Cheikh Ibrahim wax na ne ku ko jox xaalis am ko man mii nag loolu dama koo dund kon maa ngi ndokkeel ñett maa ngi ziyaara ñëpp maa ngi wax ne yàlla nañ fi dajewaat na gën a déwén wasalaamu aleykum wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillah Maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di sant Maulana Cheikh di aynil katmiya wal xatmiya di ñaan tamit yàlla ñu yàlla fayal Maulana Cheikh Ibrahima Niass. ñu ngi sant yàlla ci jataay bi nga xamante ne kilifa gu mag tey ci faydatu tijaaniya su ma ko waxee mooy ci lépp lu ronu ci ron Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci àdduna bi ba mu daj am lante nga ak Cheikh Mouhamadul Amin muy kóllëre gi nga xamante ne Cheikh Ibrahima Niass moo ko takkee ci yow ci képp kuy taalibe bàyyi ci monde bi sëriñ bi nag dañ ko gis si aaya boo xamante ne yàlla dafay wax ne inna allazina sabaqat lahum minna xusna yàlla dafa wax ne sama jaam yi nga xamante ne sama mbaax a jiitu ci ñoom wa ulaayika anna mubaduuna laa yasmauuna xasiisaha yàlla mu ne dafa am sama jaam ñoo xamante ne sama mbaax a jiitu ci ñoom teloo sama mbaax la man yàlla mu ne bi ma jiitalee sama mbaax ci ñoom dox naa sama seen diggante safaan la ñuy wax safara waxuma dox seen seen digganteeg safara waaye luy tekkale safara sax duñ ko yëg duñ ko seen kooku sëriñ bi ci la bokk li tax aaya bi daj sama xel mooy ñi nga xamante ne sama mbaax a jiitu ci ñoom looloo ma ci neex ndax baayam muy Cheikh Ibrahima Niass dafa wax ne xabbaani muraadi qabla ilmi wa nachati fa minni nawaalil kullu wal kullu maanixi baay dafa wax ne ci feeñuwaayu aaya bi ci dégg na aaya bi mu ne li ma def li ma doon moo ma bëggaloon boppam balaa may xam bay nekk lépp ci man lañ koy amee baay te ñëpp man lañ jubal ci man baay te wax jooju wax ju garaaw la mooy ñëpp man lañ jubal ci ndax lépp ci man lañ koy amee Cheikh Mouhamadul Amin moom it ñu gis ko ci maqaama boobu bàyyi taxaw nga xamante ne moom it mbaax a jiitu ci moom ndax baayam nettali na ci ay doomam ne maa leen tànnal sama bopp boobu ñoom sax xamaguñ walla nekkaguñ ba ma leen gis ba ma leen gisee ñoom ñëpp ma tuddee leen sama soppe bi comme niñ koy nettalee sëriñ bi nag ci boppam man ci moom lay wax te yaakaar naa xol yëpp ci moom ndax yaakaar naa fii ñu daje xol yëpp jublu nañ ko tawaaf nañ wala ñëpp armal nañ jublu Cheikh Mouhamadul Amin ku am xelam jublu na may wax li naar ba waxoon ci Medina bàyyi na xifir rubu ladal ta fa jamiu ma taxawaa fi zakal marba yi yow mi sa xaatir di dox di dox di wër di wër di wër di wër lu mu am ba xelam daj Medina mun a yow sa xaatir taxawal sa xel mi bu mu xalaatati taxawal dugg nga mu ne yow mi nga xamante ne yaa ngi yor say tànk di dox di ut loo am ci adduna bi loo mën a gërëm lee yàlla ngay dox ba sa jëmm ji dugg mi dina bàyyi mu ne la taxawal fii zaakal marba i ci kuuru kaarabu fa jamiu ma taxawaa fii zaakal marba i lépp loo bëggoon sa xel mi di ko wër wala sa xol bi di ko wër wala sa jëmm ji ko wër taxawal barab baa noonu barab boobu nag ci boppam man damay gis ne mooy jëmmi Muhammadul Amin bii nga xamante ne yéen ñëpp toog fii kenn ku nekk xelam a ngi wër waaye gëm naa ne seen xel yëpp jublu na ko tey ndax fa jami uma taxwa dégg nga lépp loo xamante ne xel yaa ngi koy mbëbët tey di ngeen ko am bu sëriñ bi duggee ci barab bi tey te boo leen ko jotee doo too leen ko ñàkk ba pencam yàlla yéen ñi doon dox ba dugg fi nangeen ngeen tey xam ne lépp loo leen doon ut jëmm ji di ko wër dugg ngeen ci barab boo xamante ne ki ngeen di ziyaara izirtuhu la wajada naasa fi rajulin wa dahra fi saatin wal arda fi daari sëriñ bi mooy koo xamante ne bés boo ko ziyaara fekk ko ci barab di nga fekk góor yàlla yëpp di kenn muy Cheikh Mouhamadul Amin ma ne góor ñëpp danga koy fekk ci moom ma ne tuuti rek loo leen namoon dootoo leen ko namati ndax is zirtuhu ay boo ziyaare sëriñ bi la wajada naasa fi rajulin ndax dégg nañ li may wax di ngeen gis nit ñi ci benn góor gi tey di ngeen ko fekk tey wa dahra fi saatin mu ne adduna bi yëpp wala jamono yëpp di ngeen ko di ngeen dajeek moom ci jamono ju ndaw ji ngeen toog ak Cheikh Mouhamadul Amin wal arda fi daari mboolem pàkk yi ci adduna bi tey dégg nga di ngeen jot lañ fay seddale ci pàkk bi ngeen toog ak tey Mouhamadul Amin Ibrahima Niass lool nag bàyyi ñu ko may ñun ñëpp nañ wax jërëjëf bàyyi kooku mooy Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xamante ne mu ngi ñëw léegi. li tax ñuy wax ci moom nag ndax tey ziyaaraam la moom bu ñëwee dafa war a ñaanal nit ñi ndax wax naa fi daaw ne euh, ziyaara ñu ngi koy junj ci xadis bi ñuy wax naan wér naag wérul ne ñeenti saxaaba yi dañu ñëwoon ziyaar si yonent yàlla Muhammad kenn ku nekk yonent bi di ko laaj lan nga gën a bëgg kii mu ne ko li ma gën a bëgg muy Seydina Aboubacar mu ne ko mooy toogaal ak yow yonentu yàlla Muhammad di la xool yow yonentu yàlla Muhammad waaw ñes ñes moo ñëw ni kon ma ne kon wax ne yonent bi dafa toog ak moom ak ñeenti sahaaba Aboubacar Siddiq ñu ne yonent bi laaj leen kenn ku nekk loo gën a bëgg ñu ne Aboubacar bi ñu ko laajee lu gën a bëgg dañ nekk loo gën a bëgg mu ne toogaale ak yow yonent yàlla Muhammad sama bët bii di la xool yëkkati sama alal di la ko jox kon tey loolu lañ soxla ci sëriñ bi toogaale moom sunu bët yi tegu ci jëmmam ji yëkkati lu ñu am yëpp jox ko maa ngi ñaan bu kenn ñibbeewaale dara moo tax kon Muhammad ibn Yusuf dafa wax ne maa raaytu anfaa lil qalbi min zikri saalihiina Mouhamed Ibn Youssouf dafa wax ne man de gisuma li gën a mën a jëriñ xolu taalibe bi wala xolu jaamab yàlla bi fàttaliku nit ñu baax ñi. Junayd di wax ci sunu jotaay bi tey ne alxikaayaatu jundun min junudillahi taala yusabbitu llaha yusabitu llahu biha quluba awliyaihi Junayd dafa wax ne ñuy waxtaanee soldaar ci soldaaru yàlla yi mu ne yàlla dafay dëgëralee seen xol yi tey kon tey bu ñuy waxtaanee Cheikh Mouhamad Amin xol yëpp dina ci wéree Abu Hanifata dafa wax ne rahmatullahi alayhi ci suñ jotaay bi alxikayaatu an il ulama wa mahasinihim ahabu min kasirin min alfiqhi li annaha aadaabul qawmi wa axlaaquhum dégg Abu Hanifa te dafa wax ne waxtaanee borom xam-xam te ñëpp xam nañ ne Cheikh Mouhamadul Amin yemul ci doon góor yàlla rek ci ay xaalam waaye borom xam-xam la boo xamante ne dégg nga loo bëgg mën nga ko fekk ci moom ci xam-xam Abu Hanifa te nee na toog di waxtaanee borom xam-xam nee na moo ëpp moo gën moo gënal ñu bëri ci nga leen di jàngal fiq mu ne ndax loolu tegginu góor yàlla yi la kon tey ñu toogaalee tey di waxtaanee Cheikh Mouhamadul Amine yaakaar naa li muy def si sa xol bi ci xaal bu gàtt soo doon jàng téere fiq yëpp amaan na doo am martaba boobu nga am ci toog gi ñuy waxtaanee Cheikh Mouhamadul Amine. Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahim Niass dafa am luñ gis si moom mooy Cheikh Tidiane dafa wax ci gàttal ne dafa am ay doom yoo xamante ne bu ñu juddoo ci kaw suuf. seen juddu dafay tax ñu araamal leen yenn cër yi ci xadara yàlla bi wala yenn séddale yi yàlla di séddale loolu la góor yàlla yëpp daje wax ñëpp d'accord ci loolu waaye bi Cheikh Tidiane ñëwee kaw suuf lu mu wax Cheikh Tidiane dafa wax ne ba mu des waaj a dox ba dajeeg xalifatullahi fil ard lépp luñ ko sanctionné ci xadara yàlla bi danañ ko ko delloo wala mu dajeeg waziraani wala mu dajeeg euh, mafatixul kunuz mu ne ñenn ñooñu ci xadara yàlla bi kum ci dajeel nangul la xëyal la liggéeyal la lépp lu ñu la sanctionné woon dañ la koy delloo te gis nañ ne Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas képp koo xamante ne tey am nga loo ñàkk di ko jooy sa xol bi tey jii sa bés bii nga dajeeg moom yàlla dina tenki sa lépp ci barke Maulana Cheikh Ibrahim Niass fi may tëjee nag mooy ziyaara moo ñu dajale ci benn aarif billah dafa wax ne ziyaaratu arbaabi tuqaa marhamun yubri miftaaxul abwaabil hidaayati wal xayri mu ne ziyaara góor yàlla yu tedd yi mu ne pomat la boo xamante ne foo ko diw mu wér mu ne waaye caabi la boo xamante ne dafay ubbi dégg buntab njub ak ay yiw ci ci ci xadara yàlla bi ba pare mu continuer wax ne wa tuxdisu fi suduril xaliyi iradatan wa tasraxu sadran daqa fii siatil wisri mu ne boo ziyaaree sëriñ bi ba pare mu ne tuxdisu fii sadril xaliya iradatan mu ne yow mi nga xamante ne yaay taalibe bi bëgg a defaru te tooñ sa bopp yëpp ne li la war yëpp ne woo ci te mënoo ko wax kenn ne nañ demal nga ziyaara sëriñ bi bés boo ziyaaree seriñ bi ci maqaama bi nga ko ziyaaree yàlla dina la tënkil sa jafe-jafe yooyu mu ne wa tasraxu sadran daaqa fi si atil wisri mu ne dana ubbi dégg nga boo xamante ne dégg nga ma nga woon sa yoonam maanaam ku jub ak ku jubul bu ziyaara jotee demal yow mi jubati ziyaar ba dana la tinkil lu rëy waaye yow mi jub tamit ziyaara ba dana dolli moo tax mu ne mu teg ci ne wa tanzuru wa tansuru mazluman wa tarfau xaamilan wa taksibu maaduman wa tujbiru zalkasri mu ne ziyaara lim lay defal mooy tansuru mazluman képp ku yëg tooñ boppam baa nga tooñ pay yàlla bi baa nga tooñ jaamab yàlla yi moo xam koo mën a tooñ mu ne boo demee ci ziyaara bi yàlla jéggal la say bàkkaar yëkkati la mu ne waaye dalay faggul loo xamante ne lu impossible la loo xamante ne say sa zahir wër na ne xam ne lii tey munu mën a munuma kaa am ñu ne ci barkeb ziyaara yàlla mun la ci yéegee fi may tëjee mu ne wa alayka biha fal qawmu baaxu bi sirri yëpp ñu ngi oote la waay dem leen ziyaara ji ndax la fa nekk wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi jégalu wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf yéen. cheikhina wa ustaazina wa habibina habib al-kull sayyidi wa mawlaay xalifatu cheikh huna fi Dakar sayyid Mohamed Amin Ibrahima Niass. sëriñ bi yegg si na bisimilah. war nañ si gàllankoor bi moom la yéen ñoom ngeen teggi yi kenn ku nekk taxaw fi mu taxaw ba sëriñ bi ñëw ba yegg si kaw te gii bi ñoom wax na am jeexantal kenn ku nekk mu arrière. Eh, yéen ñii bu leen toog ñi amul fu ñu toog yéen toogu leen arrière la. ñu ñëw dégg ñu wax mooy yar dina am kenn ku nekk na arrière yu toog. sëriñ muy Cheikh Omar ibnu Cheikh Tidiane ibnu Cheikh Rahim Niass radiyallahu anhu moom itam tey nuurun ala nuurin ñoo ngi teew ñu ngi leen dara jàmm ñoom ñëpp di dara jàmm doom moo daal Cheikh Rahim yi ak sëriñ yëpp mbokk yi ñu ngi ñaan ñëpp toog ñu continuer programme bi si gaaw. ñu jox kàddu bi sëriñ bi lu mu wax rek njëriñ la mu taal suñu xol yi ñu génnee nekk suñu poos yi suñu xol yi itam ñu raxas ko jox ko mu solat ci leer an yubqiya an yubqiyakum zuxran lana wa faxran lil islam wa lil faydati al ibrahimiya wa kama yaqulu al arab didla hibbatu al iraq wa nil hibbatu masr wa nahnu naqulu baba محبة الفيضة الإبراهيمية ودليل على ذلك أنه كلما حل باب محلا حل فيه الكرم وحل فيه السعادة وحل فيه السعادة لأنه يخدم الشيخ ويخدم الفيضة ويزرع في قلوب أصحابه الأحباب محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ التجاني وخليفتهما آه وخليفتهما على الإطلاق وبلا شقاق ولا نفاق مولانا أبي إسحاق الحاج إبراهيم الذي طبق شهرته الآفاق ولله البر القائل لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى وعلت في الجو أنوار تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار وأخيرا خوفا من الإطالة أقول ما قال الشاعر المرقاني العالم العلامة عبد السلام بن عضوط قال جنى الأمين ثمار العلم والأدب ما أشبه ابنا أديبا عالما بأبي إن لم أكن أعرف المرحوم والده ما كنت أوثر إعجابا على عجبي حق قدره ومقدار عظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursaliin sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala aalihi wa saxbihi alxurri almayaamiin wa baadu samaaxat alcheikh Mouhamadul Amiin ibni Cheikh Ibrahim Niass samaaxat alshurafaa samaaxat almuqaddamiin ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن هذه الزيارة تجسد تكافلا دينيا وتضامنا روحيا ودعما لمسيرة الفيضة وترسيخا لوحدة الكلمة وتمهيدا للهمم وفرصة لملاقاة الأحباب وتعزيزا لأواصر العهود والمواثيق التي تربطنا بكم وتعكس روح العلاقات التي تتسم بالخصوصية بين الشيخ والمريد اسمح لي يا سيدي أقف هنيئة أرسل فيها عبر فعاليات هذه الذكرى المباركة وزيارة الميمونة أسمى آيات التقديم والترحيب بضيوفنا الأعزاء القادمين من شتى أصقاع الأرض لمشاركتنا هذه المنة العظيمة ويتجشمون مشاق السفر ويبذلون النفس والنفيس لنجاحها إذ لا يسعني في هذا المقام إلا أن نعبر لكم عن شكرنا الخالص وتهانينا الحارة ونكمل لكم من معاني المحبة والتقدير والاحترام ما تعجز عن حمله راسيات الجبال وما لا تستطيع الإفصاح عنه كل مستويات التعابير والأقوال وإنكم لتؤكدون حرصكم الدائم على توطيد معاني الأخوة السامية وترسيخ آيات التلاحم الرهيميس أرسل هذه القصيدة ليشارك في هذه الزيارة المقبولة الميمونة المباركة ويقول في مطلعها صب وإني رغم ذاك أحاول كبت المشاعر مثل من قد حاولوا صب وإني رغم ذاك أحاول كبت المشاعر مثل من قد حاولوا لكن عشقي للمليحة هب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد بن محمد بن التجاني وعن خليفته على الإطلاق سيدي ومولاي مولانا صاحب الفيض شيخ إبراهيم رضي الله عنه وعنا به سيدي الشيخ محمد الأمين محي الدين وعماده أبناء الشيخ وأحبائه أبناء الشيخ وأحبائه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حي الامين وحي العلم والادب وحي شيخا تقيا طيبا نسبا حي الامين وحي العلم والادب وحي شيخا تقيا طيبا نسبا سليل برهام قد حفت مجالسه سكينه الذكر يحكي وجهه السحبا وحي بيتا سقاه الله كأس هدى فقام للعلم والإيمان منتصبا وحي قطبا كريما سيدا علما بحر الحقيقة لا لغوا ولا لعبا وحي سمحا حكيما عالما ورعا وحي من حوله الأتباع والنخبا وحي ليثا على باب الشريعة لا يؤتى على جهة إلا وقد وثب يا أيها المجتبى المفضال ذو كرم الناصر الحق من في الحق قد رغب المقتفي صاحب الفيض الذي دهقت منه الكؤوس ومنها القلب قد شربا سماك أصلك محيي الدين يا مددي تروي له تروي له الشوق والأشعار والخطب ما زلت يا شيخنا نورا تضيء لنا درب السلام إذا ليل إن المتقين في مقام رؤوس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله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 وشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس صدق الله العظيم الفاتحة ما شاء الله amiin yaa rabbi yal na yàlla barkeel yal na yàlla may la tawfiq dëgg-dëgg durriyatu baaduha min baadin yal na yàlla saxal ko kon Cheikh Tidiane kaddu gaa ngi noonu nga def sa xasida ñu continue bismillah bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulillahi rabbil à l'occasion de l'anniversaire 2018 de notre cher papa et guide spirituel docteur Cheikh Mahamadou Ibrahim Niass ma plume s'est ressourcée dans l'effluve généreuse de cet saint Ce point de longévité est dédié à son honneur et à l'endroit de tous ses fils spirituels et biologiques. Qu'Allah puisse garder encore Cheikh Mahamadou Amin parmi nous avec une santé de fer inoxydable. Avec sa bénédiction et une inspiration vient du Cheikh, j'ai formulé ce petit poème de longévité dénommé Babal Amin Riche. بحروف باب الأمين عيش جدي بحمد ربي نسأله مزيدا كذا رسوق من أنفاسه بيائي أمدنا يا باقي عمر ذا الولي وابقه كذا كصاحب الفلك زكائي أمدنا يا باقي عمر ذا الولي وابقه كصاحب الفلك زكائي bihi narju umuuma fayda ahmadi fi lilmi wal axlaaqi wal irtiqaa'i ajib bil amini daawata cheikhi برهان القليل زامرات الصفاء لله بر عبد ووكيل الدعب ويوم كألف تعيش بالنعماء أمين الوعي عيش مع أمنا مريم الآيات وروح جدائي أمين الوحي عيش مع أمنا مريم الآيات والاهتداء من زاركم حقا لنا الكرامة بوداد المصطفى كليل السرائي يا م... يا نفسي قل الأنفاس يا نفسي قل الأنفاس واترك الجو يفسو لأمين الثناء نعيش مع بابا في بره وظهره بفتح وفناء وجمال بقاء عليك سلام من آدم وآله زيارة تبغي زيارة تبقيك زخرا للملائي عليك سلام من آدم وآله زيارة تبقيك زخرا للملائي شمل الآل وصحابة ترا عاش بابا ما دام رب السماء ما يعني نبي عاش بابا ما دام رب السماء حق قدري ومقدار اليوم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين alhamdulilahi rabbil aalamiin alhamdulilahi rabbil aalamiin bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suñu sëriñ suñu soppee Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne bu sell la bu bàyyeekoo ci gën jaakoo ci suñu xol bàyyeekoo ci xoli mbooleem soppe yi. xoli mbooleem taalibe yi Mawlana Cheikh Ibrahim anhu jaare la ko ci làmmiñu mbooleem muqaddam yi ñu jotal si tey jii geneen cant goo xam ne ñëw di ko sant di ko sant Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci sa kanam ci sa teewaay bu leer bu rafet bii kaar kaar ñëwaat nañ tey comme niñ daan ñëwee di yëgal yëg ci suñ bopp fees dell ak i bàkkaar fees dell ak i soxla soxla yoo xam ne dara yóbbuwee wu ñu soxla yi lu may rekk soxlaal yàlla liggéeyal yàlla ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu te buntu Mawlana Cheikh Ibrahim boobu ñun tey gisuñ caabi buntu boobu lu may buntu boobu mooy sa jëmm ju tedd ji radiyallahu taala ank Cheikh Mouhamadul Amin ñu ngi lay seedeel ci suñu lot cofeelu mbooleem taalibe yi rawatina ñii nga xam ne ñu dëkkee fii ci Dakar góor jigéen mag ak ndaw ñépp yow lañ sopp nii mbooloo mi mel tey ak nam daan mel lépp du suut du wut suñ pexe du wut suñ man-man du wut suñ yitte waaye li ko def mooy xol yi bëgg goo xam ne bëgg nañ la ko te mbëggeel googu du wut lu may bàyyi nga saf ci xol yi te yàlla boo dañ di saf bàyyi ci xol yi ànd ak wér ak fan wu gudd di dund di dund bam soob yàlla nga continuer di dund di dund di dund ba ba yàlla may ñu mu soog ñu te duñu soog mukk Cheikh Mouhamadul Amin ñëwaat nañ tey ci sa kanam ànd ak soxla ñu bari yoo xam ne taalibe yi sotti nañ ko ci suñ kaw ne nañ la sottil soxla yooyu te amul sikk ne boo ko tawatee yàlla ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass soxla yi gën a faju والكتمية مولاي أبي العباس الشيخ أحمد التيجاني ورضي الله عن وارث سره على الإطلاق مولاي أبي إسحاق الشيخ إبراهيم نياس الكولخي التيجاني ما ينوي sëriñ bi Seydi Cheikh wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass. li may bokk ci jameet ansaaru diin moo indi lii moo waral may jël di ci kanamam kon maa ngi sàkku ci moom ndigal di ko sàkku it ci Seydi Cheikh Mouhamadul Qurayshi nga xam ne mooy suñu kilifa ci jameet ansaaru diin nga xam ne mooy président national. ñun Ansaarud-Din bu département de Dakar banqaas nañ ci Ansaarud-Din national kon gannaaw kaddu yu ma dégg euh, kilifa yi yëkkati ko fii aw ma dara lu wax lu dul laa uxsinu dandanuka wala dandanat muaad amul benn kaddu bu mu mën a yëkkati di wax ci moom lu dul ne ñuy ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér guddal fanam ci anam yoo xam ne amul àpp ndax loolu lañu bëgg li aju ci jameet ansaaru diin fal nañ bureau bees ci fanweeri fan ci weeru juin weer bi weesu ñu fal Barham Seck xam ne moom moo wutu El Hadj Malaw mu ngi fii mooy président d'honneur bu Jamaat Ansaaruddiin mooy ar-raïs sharafi ginnaaw bu ñu yoree Ansaaruddiin juróom benn at di ñaari mandat liggéey fa liggéey bu rafet jox la ngay Baram Seck Baram Seck nee mu lay ñaan sëriñ yi yàlla defal ko tawfiq ak najaax ci muhimma bi kóolite bi nga xamee juróom-ñeenti fukki daayira ak ñett ci moom lañ ko def mu lay ne ñaanal ko euh, yaakaar boobu ak kóolute boobu mu bañ a tas bi nasratin taati lana bi zafari ñëw salaamaaleykum moo war a yëkkati ay kàddoom bi Cheikh Mahamadou Aliou Ibrahima kàddoom a ko Seex amin comme niñ ko yàgg defee bu jot dinañ dajale adiya gu bëri rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli maazurin wallahi baabu moo ñu tàmmal zikkër te suñ dënn yi dafa namm tudd yàlla allahu laa ilaha illa allah allahu laa ilaha illa allah لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله حق قدره ومقداره العظيم aywa kon kàddu gaa ngi noonu sëriñ bi balaa ñu lay jox ñu ngi wax ne njaboot gi ñoom itam kenn demul bàyyi leen ñu nekk bitim réewam ñëpp day doon nañ un million cent soixante mille ñoom itam macha allah jaay nañ juróom gi yëpp jëndee ko taalibe sopp la lañ def bëgg la. yal na yàlla guddal sa fan ñoom dañ ne il faut ñu wax la ko joxoon nañ liste bi yëpp a yaakaar naa liste bi bàyyi nañ ko rek si xaasatul xaasa yi nga xamante Fatiha tudd leen yal na yàlla def leen ko si barki Baay kon kàddu gaa ngi noonu sëriñ bi. waaw mu ne ñu yokk si Michigan Amérique ñoom itam joxe nañ un million yàlla yokk leen te barkeel leen. Ousmane Dieng itam joxe na un million yàlla na yàlla yokk ko moom itam ko si barke Baay kon sëriñ bi kàddu gaa ngi الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على عين الرحمة الربانية عين الحق طلعة الحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المحمدي المعلوم سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه رضي الله عن عبد الذات ومظهر الأسماء والصفات مولانا الشيخ إبراهيم الذي فتق القلوب وغرس فيها محبة الله ومحبة رسول الله والفناء في الله والبقاء بالله فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير mbokk yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam laata may ñëw sànq am nañu ma téléphoné ca Nigéria di wax na jàngal nañ ma quinze salaatul fatiha mhm. ma ne ko loolu mënut a bàyyi benn feebar waaye nag ñu ngi koy sante yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne bu mayee kenn mënta mayee bu xañee itam kenn mënta xañee yàlla ñu yàlla saxalal ci barke Baay barke yonent bi barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu anhu lii suma rakk koos wax léegi wax na dëgg lislaam fooy ñu ngi koy xeexee waaye waxoon nañ ko ca dang bàyyi bàyyi na man fekk gisuma ñuy xeex lislaam rek sawaruma waaye bu ma gisee ñëpp di xeex lislaam ci lay sawaree parce que lu tax ndax yàlla moo wàccee lislaam ñu ko suñ ñun ñoo ko waral ñoo ko waral waaye buñ meloon nañ war a mel wallahi kon képp koo xam ne jëmee nga sa loxo ci lislaam dañ ko dindi damm ko comme ni ko bàyyi waxee woon maa ngi nii toog maa ngi leen di xamal ne képp koo xam ne du talal la loxoom jëmee ci lislaam danaa dëmm loxo boobu te bàyyi moo moomu nag dugg fi Baye mooy yéen bàyyi mooy ay taalibeem Baye mooy ay xaritam bàyyi mooy ay soppeem kon nag nañ fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy fexeel lislaam ñu ñu jóg ba mu déjoué suñ ko defee lislaam kanam rek lay jëm lislaam nag lu dara lu may ñaari baati seddey ak julli ak or ak aj ak asaka ak dem ca bi yàlla ba ñu ngi ci toll fa weer wi loolu mooy lislaam benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko soo yontu bi yontu bi man day gëm naa la gëm naa lislaam bi nga indi man danaa oor man danaa julli man danaa joxe asaka waaye aj bu yàlla boolewu ma ci ndax man awma alal te ku amul alal mënoo aj ñu yontu bi man kon fu ëllëgee fu may jëm mu ne ko maa lay tunqoom dugal la aljanna donc yàlla li mu amee dafay dafay maye jaayu dara lu mu amee radiallahu anhu subhanahu wa taala kon nañ góorgóorlu bu wax ci loolu te nañ <clears throat> fexe ba mbokkoo gi ci senegaal ñu commencé waat di ko defaraat politik baa ngi koy yàq bëgg-bëgg nit ñaa ngi koy yàq soxla soxlay nit ñaa ngi koy yàq te ñett yooyu yëpp suñ delloo ci yàlla yàlla daf ñuy jox liñ bëgg ba pare te du wàññi dara ci liñ bëgg moom nañ góorgóorlu bu baax a baax ci jaamu yàlla ci topp yàlla ci bugg yàlla ci jeex ci yàlla ci des ci yàlla ci xam yàlla óolu ko xam ne moom rekk moo fi nekkoon bi fi dara nekkut te moo fiy des bi fi lépp jógee te bi fi lu nekk nekk itam moom rek moo fi nekk dañ góorgóorlu bu baax a baax tey suuxat loolu suñ biir ba nga xam ne kenn duñu ñeme Sénégal réew mu tuuti la waaye amul benn réew bu ko ñemee ndax li yàlla def ci Sénégal ci réew la ko yàlla def kon nag nañ fexe ba conserver suñ patrimoine bâti ma ba nga xam ne daañ koom euh, sargal dañ ko aar ba xam ne ku ci dugal loxoom rek ñu dindi ko sànni ko fële loolu la suñu bàyyi waxoon ne islaam ku ci dugal loxoom ma dindi loxo boobu sànni ko fële ñun ñooy ay doomam kon ku dugal lislaam ci lislaam loxo ñun tam war nañ koo sànni mu dem fële mbokk yi na ngeen góor bu baax a baax ci jaamu yàlla te leen julli julli juróom ànd ak laab ak teewal ndax booy julli te fekk sa fekk sa xel mu ngi ci leneen kon julli googu sellut te yàlla du xool ci jëf yi lu may jëf yi sell yi kon nañ fi xas sellal suñu jëf <clears throat> lépp lu ñuy def na yàlla tax mhm. bu ko yàlla taxee yàlla ñu ko fay te danañu yombalal lépp loo xam ne àddina baa koy ut kon loolu mooy li nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim ci la nekkoon Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane xalifaam tey ci la nekk ñun itam ci lañ nekk képp ku bëgg yàlla ñun bëgg nañ la ku ànd ak yàlla ñun ànd nañoo yow képp ku bañ yàlla ñun faale la ndax yàlla rek mooy kii jëriñ mooy kii lor te moom rek moo am njëriñ moo am lor mbokk yi yàlla nee na qul in kuntum tuhibuuna allaha fattabiuuni yuxbikum allah bu ngeen xam bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma muy yonent bi sallallahu alayhi yàlla bëgg leen comme yàlla dañoo tegtal yonent bi pour ñu mën ko mu mën ñoo defal jàmm bañ am topp yàlla kon nañ góorgóorlu baax a baax ci loolu te itam di ko topp ci ay wax di ko topp ci ay jëf di ko topp ci zahir di ko topp ci baatin di ko topp ci lu nëbbu di ko topp ci lu feeñ ndax loolu mooy li nga xam ne mooy purifier suñu lislaam islam bi nañ ko purifier ba nga xam ne duñ ci jaamu keneen ku dul yàlla duñ ci yaakaar keneen ku dul yàlla duñ duñ gis keneen ku dul yàlla ndax yàlla amul kenn nee na fal xayru duna allahi in xaqaqtahu adamun ala tafsili wal ijmali mu ne keneen ku dul yàlla leneen lu dul yàlla boo ko ut da ngay yaa ngi ut loo xam ne amut te du am mukk ci àddina kon ñu ngi gëm gërëm yàlla kii ànd bi ñu ànd yàlla ñu ngi gërëm yàlla ci nekk gi nekk ngir yàlla ñu ngi gërëm yàlla ci li nga xam ne moom la yàlla defal muy mbëggeel gi dox suñu diggante ak kenn ku nekk ci yéen te mu jóge ci yéen itam ñëw ci man jóge ci man itam demaat ci yeen kon mbëggeel googu yàlla ko yàlla saxal Sénégal gii yàlla dana ko may ndam ba nga xam ne li fi yàlla bàyyi yàlla moo tax mu def ko yàlla ñu yàlla saxalal yàlla ñu yàlla may mbëggeelam yàlla ñu yàlla may mbëggeelam yàlla ñu yàlla may xam ko yàlla ñu yàlla may fanaaw may ñu baqaaw may ñu taraqi may ñu tadalli may ñu lépp loo xam ne daf ñuy jegal suñu borom ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمر على الديار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار أمر على الديار الديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار أرى وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار allah wahidun yàlla amul keneen kon bu kuddut baatab yàlla bu jógee nañ ñun ñëpp nañ nekk yàlla waaye mayu sikkar ngay wax diw sikkaral kooku nekkoo yàlla yàlla mooy yàlla moo fi nekkoon bi fi dara nekkut moo fi des bi fi lépp jógee te bi fi lu nekk nekk itam moom rek moo fi nekk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 ak ci baatin ci xissu ak ci maana yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa kulla aamin wa antum bi xayr all people.